d'une état mi ngi fi bëgg ñëw yàggatul ban message mooy bu daar boo xam ni ci ngeen leen di woo ci lu gaaw ñu gën leen ci taxaw message bi nga xam ne mooy premier de l'Alliance latine mhm. mooy Argentine na am un consulat général wala mu am ambassadeur mhm. gis nga euh, sëñ góor a mhm. Sénégal bërki dem maa ngi koy wax ci avec Mati Trois Pommes di ko nuyu au passage ndax moom it day def liggéey bu am solo diaspora bi Sénégal dafa am mook Argentine Sénégal daf ci am échec diplomatique loolu échec diplomatique di Sénégal laa ko tuddee. sëñ Gora man réew nga gis ci àdduna ay doomu réewam dem ci dëkk am nekk fa cinq mille personnes à 10 000 personnes munoo fexe ba am fa représentant diplomatique. loolu kan moo échec. c'est état moo échec. donc seen échec diplomatique boobu. peut-être seen yoon bi bu ñëwee moom la ñuy réparer si. jàmp bi gën a daar fi ne. mooy ambassade na am ak consulat ak consulat général en booy xool am na plus de deux mille sénégalais. Mhm. jàpp trois mille sax mënumaa am lim bi. ñun. Mhm. nañu am fii un consul. Porto Alegre. Mhm. mooy ñaari dëkk moo am concentration sénégalais bu gën a fort. São Paulo Porto Alegre. Porto Alegre am consulat. São am consulat. su ko defee. passeport yi nga xam dañ koy bëgg dégg naa barki dem sori Gaba wax ne Canada dafa sori ak Afrique du Sud ñoom lañ defal bureau passeport fixe mais moom moom sóoraaluwul Brésil kon donc nañu sóoraale Brésil ak Argentine. bureau passeport fixe dañ ko war a am bureau carnet fixe dañ ko war ndax sonn nañ bu ñu indilee ab bu ñu indilee fi mu toll nii ab commission xam nga nu ñu def Sampolo ñetti fan Rio ñetti fan Port Elagri ñetti fan loolu ñu tee ko Sénégal moo ñu ko gënal wala bu ñu demee ba di ko indi aussi ñu wax ñu nañu ñun problème yi la am dañoo am problème financement wala ñu am problème indemnité bu ñu leen fay wala ñu am problème logement ñu wax ñu ñun ñu dajale suñu xaalis ñun daggal leen bi ñu ñëw Sénégal héberger leen jox leen añ reer ñu wax ñu ñaata leen fee indemnité ñu fay leen ko ñu defaral ñu ay carte d'identité yu doy defaral ñu ay passeport yu doy mhm. waaye defaral sénégalais yi ci Brésil gépp nag ay carte consulaire mhm. parce que consulaire yi am bu ko solo loxo laal la mhm. ndax euh, bëri na ci dëkk yoo xam ne fi ne ba léegi carte consulaire Toledo bërki démb lañ fay doog a dem defal leen carte consulaire te yàgg nañ ko càmbat am na yenn dëkk yu gën a sori boo demee ba ci ba ci nord-est bi dëkk bi mel ne Recife ba xëy am nañ consul honoraire mais consul honoraire yooyu ay tubaab ñoo fa nekk te Macky nañuy dimbali ngir jëm sëñ Tuubaa consul honoraire yi que tey ah. Cascavel mhm. euh, Curitiba am na na consul honoraire mhm. mais consul honoraire tey bu nekk bu fekkoon ne ma nga ma nekk na sénégalais mhm. mais bu ñuy marché dana mën a ñëw kon consul honoraire yi nañu ko defal ay sénégalais bugguñu ay tubaab nekk suñuy consul honoraire réew am na ay mag ñu fi yàgg def fi 30 ans ñi def fi 20 ans jàng ba yor seen diplôme nañ leen tànn sélectionné leen def leen ay consul honoraire ñor li nga xam ne moom la ñu war a ci dëkk bi suñu jigéen ñi nga xam ne dañu fa nekk nga leen soxna naata sàmb ñëw ngir yàlla indil financement comprendre président Macky Sall nañ ko wax ne ko ñun amuñu tal amuñu amuñu jotu contre kenn ñun suñ tubaa la ñu àndal ñun daayira lañ xam ak liggéey jaamu yàlla ànd ak association bi nag di liggéey liggéey bu am solo ci wàllum administration donc taluñu yooyu taluñu ñu naan non président dafa war a bugg di lem foofu parce que fii ku fii compte président dégg naa sax am na yoon bu mu bëggoon a ba ñëw boo xam ne nii moom Korea def na ko boo demee Sampol dañ lay yoxoo fii nit ko nit ko manqué éducation nekku fi fii ay nit ñu éduqué ñoo fi nekk maa leen garanti ne bu ñu fi ñëwoon nit ñi bu ñu wax ak ñoom ñu war a wax ak ñoom danañ toog danañ leen déglu wax leen seen doléance ñu ñaan leen dem ñibbi fii nit ku nit ku def violence amu fi nit ku yooxu président amul Brésil amul Argentine nit ku yooxu ministre wala homme de lettres am am d'état amul Brésil amul Argentine ay nit ñu éduqué fi nekk ay nit ñu yar ñu fi nekk ay nit ñu yar fu ñu leen war a yar ñoo fi nekk donc kon message bu la amoon di ko jàllale bokk na ba tey ca doléance yi ñi nga xam ne dañu fi faatoo bëri na comme nag xaalis yooyu nga xam ne yëpp ñun ñoo ko doon dajale te nee nañ ma nga Sénégal nañ ko def recensement ñu rembourse ñu ko parce que xaalis yooyu mën naa jënd ki sëñ Tuubaa mhm. mën mën naa jënd saawiya bu ko tiyaan yi bëggee mhm. mën naa jënd kër yoo xam ne mooy kër sénégalais pour association yi moom ko donc kon xaalis yooyu nañ ñu ko remboursé mi ngi état bu Sénégal parce que nee nañ ku faatu ku ñu rey bal dañ ñoom ñoo war a yóbbu kon suñu leen yóbbu ñun lañu yóbbu dañ def demande de su ko defee ñu remboursé ñu suñu xaalis dégg naa Sori Kaba en tant que directeur de Sénégal extérieur mhm. boo ko démb dimanche mu def benn émission bu defee émission moo ko Omar émission bi ñu koy wax bi am solo lool mais moom ndeysaan digg mu tudd ci benn yoon Fallou Ndak te Fallou Ndak bërki démb lañ ko faat maa ngi dégg mu aan cas bi mujj Brésil mooy Ahmed Dem donc information bi ba war a jàll jàllul mm. moom yorul les informations nécessaires mm. te mooy directeur de Sénégal de l'extérieur mais loolu suñ góor a day lu doy waar parce que directeur de Sénégal de l'extérieur rek nga doté information nécessaire man dama ne sax eh, xëy na émission bi bu ñu koy enregistré fekkul euh, Fall Fallou Ndak faa décédé mais bi ma déggee ñu interpellé ko Cheikh Bamba Dièye te Cheikh Bamba Dièye waxam jooju di bëri ki Demba Ndiaye laa nekkoon kii nag donc dafa des désinformé wu informé wul mais Fallou Ndak moo mujj Mouhamed dem te Fallou Ndak paaka lañ ko jëm fii ci comme yore leen cinquante rial donc ñu nit bàyyeeguñ euh, waxtaan yi bàyyeeguñ vidéo yi dañuy pause ba am leneen loo xam ne ni lu bees la ñu indiwaat ko tegal ko Sénégalais yi ndax vingt et unième lañ nekk Euh, dafa am benn écrivain bu ñu naan Aimé Césaire dafa xool lu am solo. dafa wax ci nasaraan ne ne dane dane ma bouche sera la bouche de des des des des des comme nu mu ko waxee sax ma bouche sera la bouche de de ce qui ce qui point de bouche. donc dafa bëgg wax foofu ne ñun suñuy kàddu ñun. waaw ma bouche sera la bouche des malheurs. qui n'ont point de bouche. loolu dafa bëgg wax ne ñun suñuy kàddu ñun suñ koy jël jëluñu suñu kàddu am tant que Cheikh Ndiaye. kàddu yi ñu mënta wax la ñuy jël. kaddu yi ñuy toog suñu ruq la ñuy jël kaddu yi ñuy déglu ñuy jël politique luñ politique lu wuñ sëñ Tuubaa doy nañu suñ demoon ba élection yet sañ nañoo jël nag ku ñu neex ak ku ñu day woo suñu njaboot woo suñu am di jàmm ne leen wooteel leen diw loolu ci suñu baat ca kaw waaye nag guddi yi ñu toll politique lu wuñ politique lu wuñ dóoruñu martuwuñu ndax fukki at ak benn ko def ci réew olof Njaay ne na bëy la mu lekk ba sax sikki mbu ci weye deeca loo amul ci réew ma dootoo ko amati ñun fi ne ñibbi ñibbi ne takkaat suñu bagaat ñibbi moom lañ gën a jege ci desaat ci réew mi kon amul lenn loo xam ne ni ñu ngi koy soxla ndax sëñ Tuubaa moo ñu teral ba pare te sëñ du dafay ñëw bërki Dembo Ndiaye mu sëñ aboo ñaan fi dama wax ne sëñ Fallou daan yàble 2008 ba 2018 xale Xalil moo daan ñëw yow daa leen fekk daan ñu ñaanal moom ma njëkk wax ne toog leen dana baax boobu li lépp amaguloon boobu lépp amaguloon heureusement nag mosuñoo fanaan ci mbedd waaye booba dëkk bi doyoon na waar mhm. sëñ Xalil fi ñëw di fi ñëw ba dixième année sëñ Fallou nag ne ko bi yoon nag xaaral ma dem mooy sëñ Aboo daal di ñëw bi mu ñëwee bi mu taalee bomb bi moom dëkk bi dafa tàkk jëppét moo tax coow li ngay dégg ak wax yëpp taalibe sëñ Tuubaa yi ak jullit yi du ma waxee taalibe sëñ Tuubaa yi nag jullit yëpp laay wax ndax sëñ Tuubaa moom mooy njabootal islam gépp ku leen yéen jàmm ci réew mi danga am jàmm waaye ku leen yéen wut jàmm barke Cheikhul Khadim doo fi am jàmm ndax sëriñ Aboo ñaan na ko fi te te ñaan gi moom nangu na bu yàgg kon nañ leen ñeen jàmm nañ xam ne sénégalais bunut bu ñuy blâmer sénégalais bu ñu jël benn sénégalais bu def benn défaut ñu bëgg ci raxaal téeméeri sénégalais parce que bi keroog bi bi muy ñëw sëñ bi rek moo ambassadeur bi ñu koy gunge bi rek ngi tàmbali daan ah sëñ bi de war na ñaan sénégalais yi ngi tàmbali bëri problème mais loolu ku fier ci sa ku fier ci sa patrie ku fier ci sénégalais doo wax loolu donc nañuy muñalante nañuy suturalante àdduna sutura la àdduna muñalante la àdduna yërëmante la te surtout ñuy waxante dëgg bañ a jaayante bañ a jëwante bañ a nekk ci yoo xam ne ni yàlla bëgg ko yonent bëgg ko bëgg ko mel na li ñu amoon ci dernier mot waaw dernier mot mooy damay nuyu waa Argentine yëpp vraiment di kaddu yu nag di ko yëkkati ci turu sa ñànko ba ndax waxoon na ma ne heure boo yëkkati di kaddu na nga wax ne samay kaddu ak say kaddu benn lañ. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu suñu wëla rek la ñuy déggante set. Mm-hmm. waaye di ko yëkkati ci turu mboolem koo xam ne nii yaa ngi ci réew mi. Mm-hmm. Euh, fédération bu Rio Grande Sul fédération bu Paraná Baye Serigne Ka jiite ko. fédération bu Santa Catarina sa Njaw Mbay ngi jiite ko ak mboolem jullit ak. Serigne Yoro Diop mi nga xam ne moo jiite daayira Tidiane bi fii ak Touré mi nga xam ne moo jiite daayira Niassène bi ñi ngi wax ñun ñëpp seen tur bëgguñoo wax nag benn wax boo xam ne day gaañ bu ñu sañoon lépp lu ñu fi wax rek njëriñ lay doon loo xam ne doomu aadama dana ko mën a jëriñoo ndax mooy li ma la wax rek même ci néem seegal lañ nekk te ci poche kenn ku ci nekk da ngay xool message ba nga xam ne danga mën a jàll nga jàllale ko ndax barki dem rek nañ président naan réseaux sociaux nekk di saaga mais ñun yarewuñu saaga xemewuñu saaga tey keppaaru sëñ Mandoumbe la ñeroo foofu képp ku fa yoroo ak taalibe ci ngay faatu te ñun ak taalibe rek moo ñu ñor leneen wuñ xëccoowuñ xiroowuñ ŋaayowuñ bëgguñ ci pos wutuñuy marché wutuñu ko ñuy dóor wutuñu xaalis wutuñu dara liggéey joxe addi suñ tubaa dong lañ fi nekkee kon nag daal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di sàkku ñëpp ñaanal jàmm di wax ne suñ góor ñu ngi siyaare baax waa Argentine di leen bëgg di wax ne it ñoo bokk lu ñuy lu ñuy sàkku lépp ñoo ko bokk donc kon incha allah lépp lu ci mën a feeñ it dañ koy bokk njëriñ li bi ñu bokk rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.